nom des sinistrés, parce que c'est tout un quartier qui est touché aujourd'hui. Mais moi, je n'ai pas les mots pour exprimer véritablement cette situation. Très désastreuse. Oui. Mais c'est dû à quoi exactement je l'ai toujours dit et je le répète aujourd'hui. Le maire, là où, là où il est, il, il m'entend. Idrissa Seck. Oui, je parle en, euh, en l'occurrence du maire Idrissa Seck. parce que c'est pas la première fois qu'on est inondé. On a eu notre première inondation en 2007. Ensuite, 2010. 2010, il y a u un curage fictif. Ces services techniques lui ont trompé en lui disant qu'on a curé le canal, alors que c'était faux. Alors quand je me suis levée pour le rencontrer devant les cimetières, comme c'est mon frère, il m'a euh, serré à Et il m'a dit, mais Ndeye comment, exactement comment ça se passe Je lui dis que, mais le maire, c'est facile. Si on cure, on n'est pas inondé. On ne cure pas. L'inondation se produit. Donc c'est pour dire que cette année, euh, également, le canal n'a pas été curé haut et fort. C'est pourquoi il y a débordement. On cure, il a pas d'inondation. On ne cure pas, il y a inondation. Voilà. Tous nos également pour rendre grâce à Dieu d'abord. Parce que ce n'était pas évident de sortir de ces eaux-là sains et saufs. Ma deuxième intervention s'adresse aux jeunes du quartier. Je ne peux pas, leur, je n'ai pas un mot qui vaut mieux que merci, sinon je l'aurais dit. Certains sont mes anciens élèves, D'autres sont mes frères, mais soeurs, mes cousins. Tout le quartier est là. Oui, ils sont venus. D'autres ont laissé leur, leur maison patauger pour venir aider Madame Diéguen. Doudouba Diouf. Doudouba conseil municipal euh, mairie commune nord bi nga xamante ni site bi ñu nekk nii maire bi dirigé fii ñu nekk nii quoi. je crois que euh, bu mel nii joxoñ baaram Idrissa Seck faire politique def politique politicienne la parce que je crois que ñëpp xam nañ Idrissa Seck du maire Thiès. bi mu waree intervenir bi mu nekkee maire Thiès je crois que ku dëkk Kër Maam El xam nañu si leen tëjoon canal bi canal bi nga xamante ne dafa sonaloon ñun si lañ juddu gis mu nekk aw seet ouverte xale yi daan ci dugg nawet Idriss Seck bi mu doonee maire si la ko tëj kon bi mu doonatul maire je crois que situation bi su amee nañ jël situation bi teg ko feneen mais bu ñu tudd Idriss Seck parce que doonatul mair parce que mooy conseil conseil départemental maire yi ñoo ngi fii di gérer man en tant conseil municipal li ma mën a wax si affaire bi. taw la boo xamante ni ku dëkk Thiès tey jii taw bii ñu gis musuñu ko gis ku dëkk Thiès taw bii ñu gis musuñu ko gis te fii ba àdduna di tukki nag foo dem si àdduna bi taw yu mel nii fu mu am dina causer ay dégâts mais nag ñun dañuy d'accord ni maire yi moo fi nekkal population bi tey jii maire Lamine Diallo moo nekk zone bii bii inondation bi amee première inondation bi ñëw na xool famille sinistré yi xool ñëpp tey kër ma malaaji amul kër du kenn benn kër amul kër gu inondewul kër imaam bi imaam Ablaye Njëgën tey soo fa demoon tey jii sa yaram day daw parce que ñun dem nañ ba suñu kër yi indoon na suñu saal yi fees mais talatuñ suñu kër yi mais dañuy dem si jàkka yi dañuy dem si feneen parce que loolu moom moo ñu war duñ ci dugal mbiru politique parce que lii mbiru askan bi la askan wi moo ñu concerné tey su askan amee naqar nañ jël situation yi xam ne lii mbiru suñu borom la yàlla moo indi tawam nañu xam ne lii taw la buy dem ay ata at atañ fi muy taw situation bi mu amu fi kon nañu jël mbir mi jël Idriss Seck teg ko fële te ñi nga xam ne ñoo ngànk réew mi dëkk bi ah ñu wax ak ñoom parce que Idriss bi mu doonee maire la mu waroon ci Thiès def na ko canal yi ibbeeku woon tëj na leen dëkk yi koñ yi amul woon canalisation euh, def na fa ay canalisation yi amul woon assainissement assenir na ko. kon bi mu jëlee bi keneen nekkaatee maire su problème amee nañ jël ñooñu wax leen te bàyyi affaire politique politicien fii ñëpp am naqar man mii di waxe yow conseil municipal la sama kër sama salon dafa inondé ba fees del mais faale wu ma sama kër maa ngi si kër jàmbur yi di dimbali nit ñi parce que loolu la ñu yaree loolu la ñu xam ni askan wi noonu la war a doxee waaw. bien sûr vraiment on est ahuri on parce que bon moi j'ai presque 65 ans mais. C'est la première fois vraiment de ma vie que je vois ce genre de pluie-là à Thiès. On a perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup, vraiment. Il y a beaucoup de maisons qui se sont effondrées, particulièrement derrière moi. La famille Ndiaye, la famille de M. Fortez, la mosquée qui est à 2 mètres de chez nous est complètement foutue. Bon, moi, je pense bien que le canal est aussi responsable. À mon avis, je ne suis pas un technicien, mais je pense que le canal a été mal on, normalement on devrait augmenter la profondeur euh, du canal avant de mettre la dalle. Je pense qu'ils euh, ils, n'ont absolument rien foutu sur canal-là. Ils nous ont berné, ils ont mis une dalle qui n'a absolument servi. Bon, peut-être, bon, c'était pendant les travaux de, de, de la fête de l'indépendance, je, je, la mairie, parce que la mairie n'a pas de moyens selon moi.